wax maanaam yow amoo lenn looy xalaat ci euh, booy wax sa ay chronique loolu c'est très normal parce que yow chroniqueur nga mais da nga attaqué bébé Saloum ba mer lu waral loolu. bon bébé Saloum attaqué wu ko. non si non coow yëpp yaa ko fay indi. bu ma nee attaqué wu ma ko li ma wax ay moromam laa ko wax hmm. mais bébé Saloum dama ko dama ko wax li ma wax man ko bébé Saloum yow bu fi taalif. li ngay nekk di jël sa temps di taalif yàlla xarit balay musibaal bu ko naree dara jaal xam nga wala mu nekk ku ñuy baal boo ko defee ci entraînement yi boo ñëwee daan. yaa wax lii. voilà léegi na daanu. waaye doo entraîneur am yow doo conseiller am doo entraîneur am nga ne ko li ngay taalif <laughs> li ngay jël sa temps ci boo ko jëlee sa temps ci entraînement yi loolu ko ko ko wax mer. mais dëgg. ah mais loolu kay ñi loolu kay ñi nga xam du dégg sax xam ne ni dëgg la waaye tamit <laughs> ah, ah. mais est que yaa ko war a wax yow. mais ah, yow sa nga wax quoi. waaw mais defal naa man loolu laay wax Balla Gaye loolu laay wax Eumeu Sène loolu laay wax Modou Lo loolu laay wax Bombardier est-ce que xam li ma wax Papa Boy Djiné waxuma ko Bébé mais li nga wax Lac de tamit waxoo ko Bébé Saloum parce que Lac moom doo ko wax entraîné mhm. moom avancé ko parce que Lac moom fi mu taxaw. voilà parce que waaw. man je en haut ce que les en bas amul lenn lu fi njool mi créé lépp lu ma wax yow Oba gis nga ko Paatan gis na ko Dera gis na ko kii gis te bu ma ko waxee abaa ah yéen ngeen jël ma ci ni ma njool mi wax nga dëgg. dëgg la de dëgg la de ah, kon man dëgg ñëpp laay wax rek. waaw dëgg la de <laughs> man moom bu dee man ngay seet ci loolu moom ma hypocrite man moom. Euh, lu waay wax ma ànd ceeg moom bu ma génnee ne euh, keneen ki woo ma ma ko kii moo la tooñ. Euh, maa ngi ñëwaat ci yéen ñu yeggal suñu waxtaan xaaral ma dem ci entraîneur mais ku ci nekk bu waxtaanee li sa morom <laughs> yéeg <laughs> li keneen ki wax waaw misalin waay dafa indi kii de moom xam naa ni moom du ñàkk mu bëgg équipe bi moom.